Thierno Aw euh, nekk vice coordonnateur de benn Bokk Yaakaar bu Gabon et en même temps nekkoon candidat suppléant ci élection législative yi ñu jàll donc euh, tey ñu ngi fii à l'aéroport euh, pour accueillir le président de la République Macky Sall donc vous voyez tous ceux qui sont derrière nous sont venus accueillir le président en grande pompe te ñu ci kontaan bu baax a baax donc nous avons gagné et nous avons eu un très bon pourcentage au Gabon Euh, donc euh, loolu moo ñu indi fi tey euh, ci aéroport Léon Mbarr vous invite à aller vers le public et vous allez voir allons allons-y loo leen di wax gars yi loo leen di wax gars yi loo leen di wax gars yi Macky Sall oui monsieur le président nous sommes avec toi jusqu'à donc les Sénégalais sont venus en masse pour accueillir le président de la République pour lui montrer qu'il est toujours l'homme de la diaspora pour lui montrer qu'il est toujours avec la diaspora et on félicite toujours encore l'Afrique centrale qui a toujours porté haut le président de la République et ça ça se démontre ça Et vous allez voir encore plus ça dans la salle tout à l'heure. Et donc ça veut dire que vous voyez, vous voyez, comment ça se passe, les responsables ici, les belles femmes, les hommes qui se sont bien accueillis et qui sont venus ici. Voilà Momo Diallo qui vient de Port-Gentil avec sa, une grande délégation. Et merci beaucoup aussi, merci à tous, merci à vous. Et on attend le président de la République qui va arriver. Et pour l'année. alaikum bandira de Sénégal, assalamu alaikum bandira de diaspora. ɗo min minen diaspora naɓe particulièrement afrique central nde wannoon président ko woni e dow mum ko ene hawrani min minen fof min mbaɗi mobilisé min ko port gentil gonmi komin woni attaché consulaire du eh, du port gentil komin ardi délégation 30 personnes min gari min tawi ɗo ibrahima sall coordinateur général e membre économique social bandiraɓe fof jalti guuri anndinɗe président de la république amin caggal makko amin yeeso makko amin nannganimo haa ɗo allah fof kadi diaspora wawa yobdemo bandiraɓe sénégal fof min calmini ɗumen min juurima ɗumen ko ɗum woni mobilisation gonɗo ɗo ko min mamadou diallo haaldata e moon porgenti allahuma salli alah senan kadi merci akisal donc cela montre combien la diaspora elle a adhéré à son leadership euh, l'homme du développement euh, notre reconnaissance elle se manifeste chaque donc qui a pris la diaspora comme étant la 15e région. Donc c'est une manière pour lui euh, d'impliquer toutes les composantes, tous les Sénégalais dans le projet de société. Donc euh, nous allons l'accueillir, nous allons discuter avec lui et nous allons lui euh, toute notre adhésion à son programme de développement. Les jeunes, les femmes, et tout le monde est là. C'est une circonstance euh, particulière à l'occasion de la fête de l'indépendance euh, de notre pays frère, notre terre d'accueil, euh, le Gabon. nous allons le célébrer ensemble. Merci beaucoup. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu emin ɗo aéroport lewon ba adde jabɓade son excellence le président de la République du Sénégal, son excellence M. Macky Sall, e hollirde tan weltare ɓiɓɓe sénégal naɓe wonɓe ɗo au niveau du gambon e hollirde kadi vraiment ha joni koye makko min gondi e président Macky Sall ko wondude e émergence ko wondude kadi e yaarude yesso ɗum noon minen ko caggal allah e caggal makko min goni kala lekki kadi nde o feƴƴi emin dondo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu merci beaucoup mbokku sénégal ñun mi ngi fii gabon libreville accueillir euh, la koo xam ne daf ñu defal lu rëy tànnal ñu suñu député macha allah jigéen ju baax liggéeykat ñu kontaan si trop tey nag ñëpp mobiliser ñëw pour sargal ko war ko ne ñu ñu ngi engage ànd ak moom di ko jàppale di ko félicité aussi si élection yi mu génn léegi ñu ngi kontaan ci moom jeunesse bi yëpp a ngi fi cadre yaa ngi fi sénégalais yëpp sénégalais de la diaspora ñu def Afrique centrale ñëpp a ngi fi macha allah loolu c'est la bienvenue merci. du Gabon. on est venu accueillir notre président de la République, son Excellence Macky Sall. Euh, on dans les neuf provinces. Les gens de Franceville, ça fait plus de 700 km. Ils ont tout laissé pour venir accueillir notre président et pour lui souhaiter la bienvenue, et essayer d'échanger avec lui et pour euh, notre vécu au Gabon et notre retour au Sénégal et ce qui se passe au Sénégal. Donc c'est un honneur de venir ici et de l'attendre et de l'accueillir. et de souhaiter la bienvenue. Donc, euh... En tout cas, nous me mobilisation, mobilisation. avant tout, nous l'ensemble du peuple sénégalais et le peuple africain. Comme vous le savez, c'est le président de la République du Sénégal qui sera là tout à l'heure, le président Macky Sall, en même temps le président de l'Union africaine. Donc euh, vraiment, la, la, mobilisation a été parfaite et nous remercions tout le monde. Euh, On est satisfait, on est content, rien, rien de plus. Monsieur Baroukan l'attaché de l'ambassade Sénégal au Congo-Brazzaville, euh, responsable APR dans la sous-région Afrique centrale. Bon, euh, nous sommes venus aujourd'hui accueillir euh, son Excellence Président de la République, Macky Sall. Euh, comme l'habitude, on centrale. Euh, on vient de tout le coin d'Afrique centrale pour l'accueillir pour euh, renouveler notre confiance avec lui, que uh, toujours nous sommes derrière lui. bon, comme Val aussi a demandé qu'on parle en pulaar, et je vais te résumer en pulaar aussi, pour te dire. hannde ko ñalawma mo ngannduɗaa ngari ɗo henna ko jaɓɓaade de la république son excellence Macky Sall ko afrique centrale kalton ɗo henno ko baru kan APR au Congo attaché à l'ambassade au Congo Brazzaville e o ari ɗo ɗon hannde kadi jaɓɓaade président wadde no ɓe mbaɗatno afrique central hollude président min ngoni ko caggal muɗum hannde min ngoni caggal muɗum janngo kala ɗo ƴeeguɗo min ƴeewat ko jooni fof ko ɗumin tagata donc assalamu aleykum wa Moi, c'est Alassane Dia, euh, coordinateur de l'Union pour le renouveau démocratique. Euh, je suis venu ensemble avec tout le monde sénégalais ici au Gabon pour accueillir le président de la République Macky pour lui souhaiter la bienvenue au Gabon et surtout pour lui féliciter pour la belle victoire qu'il a eue. Malgré que c'est serré, mais quand même c'est une victoire euh, encourageante qui lui permettra de travailler pour le développement du Sénégal. Donc nous

Gracias.

Monsieur le Président, Monsieur le Président, Excellence, vous êtes le Président de la République du Sénégal. Vous êtes le Président de l'Union africaine. Nous souhaiterons que vous soyez notre avocat auprès de son Excellence Ali Bongo. le visa soit annulé ou bien diminué, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellence, aujourd'hui, si vous voulez envoyer de l'argent au Sénégal, si vous envoyez un million, durant tout le mois, vous ne pouvez plus envoyer. C'est très difficile, Excellence. si vous êtes au Gabon aujourd'hui, si vous voulez rentrer, alors que vous avez payé un cochon de rapatriement, vous n'êtes pas remboursé. Excellence, la liste est longue, mais vous n'avez pas assez de temps, Excellence. Donc, euh, soyez les bienvenus, Monsieur le Président. Excellence, aujourd'hui, il y a Samafal qui est là, le président de la communauté Franceville. ça fait plus de 650 kilomètres. ya y a Madame Antadien, président de la communauté. Elle est son foyer pour les Sénégalais. Il le représentant de Makoukou, de Lambarané, de Makouké. Monsieur le Président, si vous avez un petit temps, même si minutes, il faut nous recevoir. La délégation de Port-Gentil, fortement représentée, est Merci, Monsieur le Président. Vive le Sénégal! Vive le Gabon. Merci, madame. Et euh, nous pouvons être fiers de notre démocratie. Nous pouvons être aussi fiers de notre diplomatie, de tout ce que le président Macky Sall est en train d'œuvrer au niveau du Sénégal, en Afrique et dans le monde. Euh, le mouvement Makitan qui a travaillé durement pendant ces législatives prend part aujourd'hui à côté du président Ahmed Bal pour manifester son engagement auprès du chef de l'État. Et comme d'habitude, avec nos anciens, avec les jeunes du mouvement Makitan, nous comptons encore faire plus de victoires avec le chef de l'État. Merci. C'est donc euh, comme M. Diabong, le coordinateur du mouvement, l'a bien précisé, aujourd'hui c'est un grand jour. On accueille son Excellence le Président de la République Euh, ici présent, on a M. le maire, M. Abou Diallo-Balé, le maire de Ogo, un inconditionnel du président de Macky Sall et surtout ami de son Excellence et euh, Monsieur le ministre euh, Donc euh, c'est un, un, remerciement et vraiment un, contentement pour toute la communauté sénégalaise du Gabon d'accueillir son Excellence le président la République sous la bannière Makitane. Euh, on a euh, asséminé avec la coalition Benabo Kayaka, d'où la, législative. On a apporté notre aider le président de la République dans, dans sa euh, euh, lancée de politique pour le développement du Sénégal. Je vais laisser la parole à monsieur le maire, il va essayer de conclure. Euh, le monde, euh, les deux peuples d'ailleurs, le Sénégal et le Gabon. Je salue tout le monde, surtout le, mon petit qui est là à Moudbal. C'est un petit qui est dynamique, qui est courageux, qui a des ambitions. e bandiraɓe on calminaama on njuuraama o ko alhaji abou diallo balel jeyaɗoto o la commune de ogo l'ami de maître Malick Sall comme il vient de de mission à la présidence de la république abdourahmane fall ɓurɗo andirede bajjel fall addi min ko jaɓɓal président de la république surtout ministre la justice o wi kam heccanki mati abou ka jeejiɗo président yaha gabon mbima ala ɗum yejjittaki o wi mata ka jaaha o mbimo mi nder avion ça se prouve kanko haqqille donc min gari kadi koye koyɗe makko aussi e ɗemgal makko par ce que ciftinowomo président arasti kala ka yejjiri bomin monsieur euh, monsieur le ministre ɗum yejjittake min jaadimomo sall min jaarno président la république min mbiya e ɓe ɓe golli ɓe golli monsieur le président de la république minen kam ala komin mbawi widemo so wona o jarama omo jogui vision l' émergence makko fof ɓuuri welde e sénégal min ɓuuri weldemi kono wi élection de maire à un seul ɗum eyyi kadi ko législatif mo ɓennuɗen ɗo min beltima no waɗira organisation organisé e leyɗele he surtout diaspora afrique central on jii heɗani hen caggal sur les 15 kam enen kam allah hokki en quelque part en dañi 3 afrique central ko hen jeeya ene jarne sambi idil en ɓeeɗo ko dariɓe ko sukaɓe dariɓe apr wonan ɗum ɗo ko yimɓe e gens battante ko yimɓe forɓe tiiɗɓe kadi ɓe jarta hen caggal ɓe ngala kamɓe ɓe dokkama le moyen uppale ɓe dukani ɗum ɓe duki tan ko yo président notre ambition que le président gagne il construit le pays emin jaadema ko emin beltanimo sa ummima ila janjoli dakar aɗa fayi ila janjoli koylel ne ko itari quatre heures ɗum noon min beltanimo c' est un petit ambitieux ɗum ɗo ko golle moƴƴe par ce que gonɗa koye hollude sukaɓeɓe no liggorte aɗa yolta pulagu ngu aɗa yolta hujjaji ɗi a waɗi minen numérique amba maire uji gaari keesi tawi numérique numérique keeso e min hen Merci. petit frère. Mais c'est quelqu'un qui est dynamique, qui a eu vraiment à faire battre campagne, de, de pré-campagne, de la campagne. On a vu la, les gens qu'ils ont mobilisés. Nous le remercions parfaitement. En communion avec l'APR, avec Ben Bokyakar, yaakaar avons, nous avons gagné largement les élections. Et nous sommes derrière Maxal jusqu'à la fin. Donc euh, nous profitons de l'occasion aussi président, euh, pour dire le président de la République que tout le Gabon est derrière lui, tout le Gabon est derrière lui, et M. Ball également, qui est là, qui est petit frère, qui a fait un travail extraordinaire, mouvement Makital. Donc il faut l'encourager, il faut le féliciter. Merci beaucoup. Je salue les imams et oulémas salmini on juurima on amin belti e darde moon amin jetta on e duwowuji moon J'ai entendu les doléances de la communauté a awluɓe ɗe fota yejjiteede no awluɓe mbaɗano no mbaɗɗen me moon Salmina Bodo Yetta, notre responsable de PT, Moussa Abdul Cham, qui a fait avec nous deux législatures et de nos plus grands responsables, un ami de longue date de notre frère Amadou Mamadou Conté, qu'Allah l'accueille en son paradis. Et je voudrais, Moussa, Pour ce qui concerne vos doléances, j'ai bien pris notre frère Abouad ainsi que Demadia, Omar Wad, au des enseignants, ainsi que Mademoiselle Sarr, je pense, moom de tout ce qu'ils ont dit concernant vos et difficultés liées parfois au règlement du Gabon ah dinaa ñëw ci wolof bi bu des difficultés sur les de sortie, sur la limitation des envois à l'étranger, sur les facilités à faire à vos enfants diplômés et surtout aux nouveaux bacheliers qui sont ici et qui ont besoin de poursuivre leurs études, soit ici ou au Sénégal ou ailleurs. Vous avez également exprimé votre besoin pour une aide au rapatriement de certains compatriotes à travers la mise en place d'un vol spécial de retour. Je vous donnerai ce vol spécial. Je demanderai à Monsieur l'ambassadeur de travailler avec les communautés pour que ce voyage soit organisé. Monsieur l'ambassadeur, il important également de donner des documents au président des communautés sénégalaises à l'intérieur du Gabon, documents de l'ambassade sous forme de carte de président de communauté de ceci ou de cela. Par exemple, le fait de juste une sorte de reconnaissance, cela est tout à fait possible et je vous demande de le faire. Vous avez également parlé de subventions et surtout des programmes de politique publique. L'ADER qui jusque-là intervenait seulement à l'intérieur du Sénégal depuis plusieurs mois. J'ai demandé qu'une étude soit faite rapidement pour qu'elle puisse avoir également une enveloppe pour les jeunes de la diaspora et les femmes de la diaspora. Maintenant, je dois vous dire, mes chers compatriotes, que vous savez parfaitement que le monde actuel vit une crise sans précédent. Et tous les pays du monde sont concernés. Il y a des difficultés partout. Nous avons les conséquences de la crise Covid qui continue à impacter négativement l'économie mondiale. Les conséquences de sur la cherté de la vie, sur les prix des denrées de première nécessité. Donc, nous sommes reconnaissants de l'hospitalité généreuse dont la communauté sénégalaise fait l'objet ici au Gabon, de la part du président de la République gabonaise, de la part des autorités et du peuple gabonais. Le reste, ce sont des doléances qui seront portées aux lieux indiqués et nous verrons ce qu'il est possible de faire. Mais nous ne pouvons pas ne pas magnifier l'hospitalité de la communauté gabonaise à l'endroit des Sénégalais. Tout comme nous accueillons comme des frères et des sœurs au Sénégal une forte communauté gabonaise formée pour l'essentiel des étudiants et ils sont toujours les bienvenus chez nous au Sénégal. bu loolu weesoo mbokk yi ginnaaw bu leen nuyoo ba pare yéen waa Sénégal yi toog fii ci Gabon yéen waa Sénégal yi toog fii ci Afrique centrale moo xam Congo Cameroun Guinée équatoriale Tchad ba Angola sax ak République démocratique du Congo maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm d'abord ci seen teeru teeru bi ngeen ma teeru tey ci aéroport bu Libreville di leen gërëm ci seen teewaay tey ndax yàlla xam na ni comme dafa xatoon dama ne woon sax bi yoon moom du aaju ñu def ndaje waaye ngeen ne ma mukk loolu mënul nekk monsieur le président mënoo ñëw ba Gabon te doo dajale doo dajale sa communauté kon am naa mbégte lool ci communauté bi imaam yi ak ulema yi waa église maa ngi leen di nuyu di nuyu mag ñi ak ndaw ñi di nuyu jigéen ñi di leen wax nag gàcce ngaalaama yéen waa Gabon ak Afrique centrale seen taxawaay mosul ñaaw da ngeen mos taxaw taxawaay bu dëgër da ngeen ma mos a jox victoire kon su ma ñëwee fii war naa leen wax jëf Allah jaaraama woon jaaraama li ci des wax ngeen koo mooy jafe-jafe yi jafe-jafe yi bëri na waaye nee naa leen adduna bi moo nekk en crise crise bu metti ndax depuis ñetti at léegi mbas mi mu ngi fii muy covid yàq lu bari ci koom-koom andi ay gàllankoor yu bare bare ci bërëbu liggéeyukaay yi ba tax na li nit ñi doon mën ci biti wala ci biir sax mënatuñ ko économie bi am ralentissement kon xam naa bu baax seeni jafe-jafe rax ci dolli ngeen wax jafe-jafe visa de sortie yi ak jafe-jafe yi nga xam ne tey ku bëgg yónnee alal sa xaalis Sénégal wala ci biti mënoo yónnee lu ëpp un million ci weer bi muy donc ay gàllankoor ak lépp li ngeen wax li jëm ci étudiants yi nekk fii wala ndaw ñu fiy jàngee ba bu ñu amee baccalauréat ñoom it bëgg am ay bourse pour yeggali seen jàng fii ci Gabon wala Sénégal wala feneen laajte ngeen itam nañu yaatal ndimbalu DER ak yeneen yi kureel pour que yéen ndaw ñi yéen jigéen yi nekk ci diaspora bi ñu mën leen jàppale ci ay projet mën leen financer wax ngeen ma it jafe-jafe yi am te booba newoon ngeen bëgg ngeen su président mu ne mu yónnee fi ab avion boo xam ne danañ ko affrété mu jël si lu toll presque si ñaar téeméer ak juróom fukk ba ñetti téeméer ci ay doomu aadama pour ñu delloo leen parce que am nañu jafe-jafe pour ñibbi Sénégal loolu dinañ ko def xëy lu dul yàgg une fois pare liggéey ak communauté yi ba ñu xam liste bi fu mu toll bu ci yàlla àndee avion bu ñëw jël si suñu mbokk yooyu li ci des nag moom mooy rek àdduna boo fi nekkee boo ci nekkee àdduna dafa ànd ak jafe-jafe ku la waxul loolu mu ngi lay wax lu dul dëgg fenn tey ji neexul ci àdduna bi du Europe du Amérique du Asie du fenn du Afrique waaye loolu ay ay jamono la rek conjoncture lañ koy tuddee moo tax nit ki da am toujours ngëm-ngëm am fois ci sa bopp bu jafee nga muñ xam ne luy jàll la moo tax li ngeen di wax fii ci Gabon war nañu sant d'abord waa Gabon muy président bi gouvernement bi ak peuple Gabon ci ni leen téye ci ni ñu leen accueillir li ci des dinaa ci waxtaan ak ki ma ci war a waxtaanal xool yenn amélioration la mën a indi ngir ñi liggéey ba retraité war a jot seen retraite ñu mën ci jot ñi nga xam ne itam soxla nañu yónnee seen alal si biti ñu mën leen yombalal loolu ci anam yoo xam ne yu jaar si yoon la loolu ambassadeur bu Gabon mu ngi toog ambassadeur bu Sénégal mu ngi toog le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur mu ngi toog kon li ngeen fi wax yëpp leer na leen leer ne dinañ ko tënk jottali président bu Gabon ak gouvernement bu Gabon jottali ko jot man jot naa ko ba pare waaye sama gouvernement aussi pour ñu liggéey sur ces différents sujets kon nag maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm dinaa recevoir léegi rek waa province yi waaye recevoir boo xam ne nuyoo la saafantante ak gërëm leen bu nekk beneen meeting ak aussi waa Benno Bokk Yaakaar yi nuyu leen sant leen gërëm leen maa ngi di sant di leen ziar wasalaam